mbokki internet yu DKR 221 dal leen ak jàmm dugg sik Idrissa Seck ci coalition Benno Bokk Yaakaar deful dara lu dul indi ay perturbation kaddu yooyee nag DG bu ANAMO moo ko daal di yëkkati di Maodo Malick Mbaye Maodo Malick Mbaye ne ni démb nag ba muy daal di amal benn ndaje di ci joxe ay suukaru koor ca la defee porox ndoolu daal di yàq Idrissa Seck lam ko bëgg yàq mu daal ne njiital mi Idrissa Seck dugg si gi nga xamante ne dugg si na ko ci coalition Benno Bokk Yaakaar deful dara lu dul indi ay perturbation Maodo Malick Mbaye daal ne jamono ji mu bëgg mooy ñëpp ñëpp daal di ànd ak njiitu réew mi président de la république Macky Sall daal di bootu ci kawam mu daal ne nag ngir daal di jàppale candidat wu réew mi ak candidat bu bennoo ci élection locale yi la ñu génn loolee daal di nay nekk loo xamante ne manager woon nañu ko ba daal di décision yi nga xamante ne ñaari leader yi di Macky ak Idi daal di nañu koy jël ci kàddu mburoog soow ca waxtu boobee nag Maodo Malick Mbaye daal ne man mii mënoon naa doon ab candidat ci élection locale 2022 yi ñu génn waaye nag ngir daal di respecté mburoog soow moo waral ma daal di réglé ñu daal di may relégué au second Maodo Malick Mbaye nekk DG bu ANAMO daal di dellu siwaat nag bu baax a baax ci démarche yi nga xamante ne idi mu ngi koy daal jamono ji nekkatul mburoog soow waaye cere soow la cere nag loo ko siimee rek mu daal di ànd ak moom mu daal ne nag Idrissa Seck jamono na ko leer leer yàlla ni ca ku jéeg politique ga moom amu fa place Maodo Malick Mbaye daal ne doxalin wu yees yi nga xamante ne nag Idrissa Seck mu ngi koy doxee jamono ji doonul loo xamante ne nag lu ma daal di cautionné la rafet lu ma ko benn yoon Maodo Malick Mbaye daal di nekk nag ab responsable nekk membre bu Benno Bokk Yaakaar daal ne nag